والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الكرام المحبوبين المجاهدين ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين ورضي الله عن القطب المكتوم مولانا أبا العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه وأتباعه وأحبابه وتلاميذه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونحن منهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي julli في تيويب ci góor ak jigéen mag ak ndaw dëkk ak gan kilifa ak jaboot ñoo ngi leen di nuyu nuyoo yoo xam ni ñoo ngi ko tibbe sunu biir xol jëmale leen ko mu ëmb jàmm ak yërmande ak baraka yan na ko fi yàlla wesaare ci képp ku fi teew wesaare ko ci tundu ndar wesaare ko ci réewu Sénégal ak ci alamul islam bi yépp ñu am mbégte teew ci seen biir wéttali ko njabootu xadaratul ixsaan bu Seydil Xaaji Maajoor Siise radiyallahu taala ñu ànd ci yoon wi ak alxaaji Mansour choy nga xamni kenn la ci ñun wante kenn la yi ci Serigne Babacar si Mansour ñu andi ak i muqaddam imam ak président daïra di ci ragné Serigne Déthié Sall Serigne Ahmadou Diop Serigne Madior saw di ci ragné Serigne Ousmane Faye imaam abdullahi saw imaam abdul hadi ba ak imaam babacar diagne ndax tey dañu la able mais si délégation bi nga bokk ak mbooloo mi ak i président daayira yi ak ñi amee am daax yi ñun ñëpp ñoo àndandoo ak yéene gu sell ak cawarte ñëw teew fii ngir dox si tànku mbokk tànku wëllëri ak tiofel ci ko xamni kenn la ci ñun muy Mouhamadul Ghali Fall alxaaji Mouhamadul Ghali Fall ñi ngi lay ziyara bu baax a baax li nga fi wone legi day wone ni tiofel bi nga am ci nit ak yëg-yëg non lañ la soppe noonu lañu la bëggee noonu lañu lay yëgee te soo gisee ndaw lu nekk ci lu baax dañu ko war encourager wéttali ko soutenir ko tànk yooyu lañu fi ñëwee ñoo ngi lay ndokkeel sa guddi gi di la ñaanal yàlla nga yàgg ko taxawe te yàlla ci yàgg am ndam te muy ndamal lislaam ndamal tariqa bi ak sa néegu kër wayjur yu tedd yooyu bàyyi Abdoulaye Fall Maguette ak bàyyi El Hadj Yacouba Fall rahmatullahi alayhim ajmaina di nuyu bu baax ñi ma fi fekk samay soppe bopp mu di Chérif Tourate Haydara Chérif Tourate ku ku ma xam xam ko seq nañu zahir seq nañu batin moo tax kontaan naa ñu bokk jataay bii jataay yu ay soppe Chérif ba Haydara ay dara ñu ngi lay ziar bu baax a baax bëyya di ko wàccee si wàccuwaayam di nuyu suñu doom bay bi sëriñ Xaadim Mbàkke ñu ngi lay ziyaara bu baax di la bége di la wàccee sa wàccuwaay di nuyu sunu doomu baay sunu xaritu bopp sëriñ Yaquba Mara di ko ndokkeel ci teewaayam mais di bég ci ñu mu terle sunu soppe bii sunu rakk teraanga jooju defalu ko ñun la ko defal daara ji la ko defal xadara bi la ko defal ndar la ko defal sëriñ Mara yal yàlla teral ba yéene ji nga am ci sa njabootu kër way jur wi yàlla mottali ko insha allahu taala mu di yoon wu leer zihaban wa iyaban di nuyu bu baax suñu rakki bopp sëriñ Bachir Diop Abdoul Majid sëriñ Baye Dame Wade bu kër sëriñ Abbas di nuyu sëriñ Jibi Taw Fall El Hadj Malick Fall tabaarakallahu ak mboole seen ñi nga xam ni ñoo bàyyeekoo Tiwaawan te teewal fi Cheikh Omar Sy xam naa ni jataayam la su teewul rek ngant ko téye kon nuyu naa leen yéen ñëpp ziar naa leen ngeen nuyul ñu njabootu kër Baye El Hadj Mbaye Donde Mbaye njabootu kër Baye El Hadj Moussa Ali ak seeni i mag ak seen kilifa ak seen ay nijaay te taxawaay bi yàlla na yàgg seen loxo te ngeen am ci ndam am ci riba rahman wallahi oustaz Mouhamadou Ghali da ngeen baax rek jox ñu kàddu ñun dañu ñëw seetaan ci gàmmu ñun dañu ñëw seetaan ci gàmmu gàmmu Serigne Mara dañu koy dàq ci télévision yi ak si internet bi ngir am lu ñu bégloo ak sa gàmmu da baax na jox ñu kàddu tabaarakallaahu benn ba ñaari baat ñu wétturante ko ak mbooloo mi ca na mu gàtte ngir jox kilifa yi ñun ñu toog taataan leen ah dañuy sàkku tuyaaba te képp kuy sàkku tuyaaba danga koy dàq ci guddi yu mel nii wala bëccëg yu mel nii نخيال مونيك القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ينجم يلا جم يبو سنتاني جم ويتا يبامل سنلين ووي ووتي بو خمني دفاي دندر سين روح اك سين خلق ci pas-pasu liimaan ak mahabbatu nabii sallallahu alayhi wa sallam su ngeen amulee ngant na ngeen ca teew yàlla dogal na amuñu ngant kon ñëw nañu ci loo xam ni am na yu ñu ngi di nañu ak ñoom am na ñu ñu xamante nañu ak ñoom cofeel gën a juddu tabaarakallaahu xol yi gën nandalu ci mahabbatu nabii loolu jar na ko نخ ويكدرين كويسين أي أمدح للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي بمحمد أني خمني دنو بقيانتي صلى الله عليه وسلم بأم يصاب أمنا بين ماليز بين فرال ديكن تم ماليز بو سودكي دار دوكا دلال perfusion دوكا دلال بكير دوكا دلال ay jaddu ko dalal lu dul julli si yonent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ku ñëw sulu mel nii tabarakallahu fanaan yàq sa nelaw ngir lan ku ko jar mooy salaatu ala nabi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dolli cofeel ci moom ndax ku ko sopp yàlla sopp la te ku yàlla sopp nga dugg àjjana kon jotaay bii ñooñu rafetlu ni ngeen ko tërale te ngeen wooñu ci yàlla yombal ñu ñu mën teew fii taataan ci leer yi ak tuyaaba ji yal ko yàlla boole si jëf yi mu gërëm beneen bi moo di ku fi ñëw teew fi ak dëkk yi nga lim yëpp ci ay soppeeki mbokk itte moo leen yëkkati te itte dafa am solo ci lislaam te bala ngay am itte ci nit jëkkal am itte ci yàlla ak diine yàlla ci ci itte jooju ëllëg moo nuy jariñ ba tax na aaya bii nekk suratul xajj bi ngay waxtaan yëpp di liñ tur yi ma ngi naan lii daal itte la farlu la farlu la bëgg nit la bëgg yàlla la aaya bi digg sama bopp suratul xajj aaya 78 wa jaahidu fi llahi xaq jihaadihi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرش ملة أبيكم إبراهيم آه يلا نينا وجاهدوا في الله حق جهاده ونلن إتي أكفر له دق دق إتي في دين يلا يني جم يلا جم يمستنتاني جم ويتاي بامل ونلن إتي ونلن فرلو wane leen cawarte ci diina yàlla ji dëgg dëgg cawarte wóoj tabaakum ndax yàlla moo leen tànn ci xeet yëpp jox leen gën ji tedd diine loolu teranga kenn mëntu ko fay wa ma jaala aleykum diini min xaraj te diini ji mu leen jox tegu leen ci lu diis mbaa tiis lu ngeen attanu ku ci nekk mën na ci bokk kente lay niveau ba nga toll nga jaamu ci yàlla am ngërëm tegul lu diis diine su mettee nit ak a metti yàlla metti lu ko de yàlla metti lu ko de bu kenn diine dafa metti ba nga daw laa hawla wala quwata illa billah wa ma jaala aleykum fi diine min haraj tegu leen benn contrainte tegu leen lu ngeen attanul ñëpp mën nañu jaamu yàlla millata abikum ibrahim نين الدين جي يونك تي جي مام إبراهيم عليه السلام مام لا أميون كوكو فرتنا من يم هو سماكم المسلمين من قبل يلا نينا مون تان مولن تان تدلين نيك جم نيك جبل نيك نانغول لولو نكوكا يلا دفل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس نيرك بسبنتما يرنتي بي صلى الله عليه وسلم تخو ناني يلا نيغا ما يوني وون دي لين سيو بنت تل نانغول ناني مكو نيب اندول ناني يلا كيغا يوني وون دي نيو لينغا لينكا واخون ييب تي توپ نين سي غناوم نيو سانتي يلا فاقيموا الصلاه wa aatu zakaat wa'tasimu billahi huwa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir su boobaa jataay yu mel nii ak géew yëpp day nekk jataay yu sant yàlla ci boobu la teraanga moo ñu tànn jox ñu gën ji tedd diine teguñu si diine ji lu tiis ak lu ñu attanul diine Ibrahima alayhi salaam la jox su boobaa mbokk yi فاقيموا الصلاه نجل الفنك جولي كوي تحاول جولي رك يانجي تحاول تحاول كوي سنت يالا تيبيل ترانغا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه كوي يالا جوخ ورسك تيغا ورسك نتا اسكا باغي جيني صرح سوري جيني ازكا بوبا اك صرح صوف نيل مانجي سنت يالا تي ترانغا بيما دافال مري ديلو نجوكل واعتصموا بالله تيو اند موي تي غومو يالا moy ci gumu yàlla ji moy li ànd jafandu ci ben chaîne ascenseur bu ñu yéegale ci kaw ci bumu yàlla ci moy bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy gëm alquran mais top kilifa diine ci sidina cheikh nee na al mashaayixu xibaalullahi adlaha ala xalqihi fa man tamassaka bihi najaa nee sëriñ si ay guum lañu ay buum yu yàlla yoxtal bu jógee asamaan ku jafandu si seen gannaaw di nga mucc kon sant yàlla mooy taxawal julli natt asako génne sarax ànd ak dëppoo ànd ak bennoo ànd ak ngoy ci buumu yàlla gi topp kilifa diine yi huwa mawlaakum yàlla yi sunu borom fa niamal mawla wa niamal nasir est-ce que bi bi la borom bu am yërmande ci jaamam est-ce que boroom boo xam ni waxtu wu nekk mi ngi ñot di jaam pour jaam mën jege yàlla am rida rahman kon mbokk yi ittee moo am solo nañu am itte si sunu diini am itte ci lépp lu aju ci yonent bi sallallahu alayhi wa am itte ci doomu aadama yi kenn par kenn nit nite mooy garabam nit nit ku nite mooy garabam na ku nekk xool ci sa morom bu gën a bu la gën nite nga jàng ca moom yiwe waxin teggin diine xam-xam tabaarakallaahu bërëc nit ku nekk seetal ca moom jaamu yàlla la nit jaamu yàlla la abdu ilaahi loo mënti nit ki lu mu am ci doye di tegal doye bi ci gannaaw nga xol kañu koy dakantele abdul ilahi jaamu yàlla la nga rus yàlla gañ koy dakantele wallahi suru se yàlla gañ koy dakantele yàlla yinum la nit ak doye dem nit ak sàgganeem nit ak tiaxanam wante bayiko ko jaamu yàlla la yàlla ak bëgg nonu ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا يلا لا نخ

nit kii kat li muy dox de xëy na nekkagul ci yoon yan nag yàlla teg ci yoon wante ñun man ak yow amuñu sañ-sañ ak droit dugal ñu àjjana mbaa dugal ñu safara koo gis mu nekk ci sàggan ñaanal ko yàlla yiw koo gis mu nekk ci lu baax ñaan yàlla mu saxal ko ca si nga loolu daal muy équilibre bi nga xam ni ku ci jaar na mag ñeen ñeen woon ci réew mi mag ñi jaar nañ Seydi Hadji Malick jaar na ci cohabité na ak ñëpp am na ko jóge màkk bés gis sa màkk ca Kaaba ga kuy tux përis mu ñëw seen xaj Malick ni ko El Hadj Malick naa ca Kaaba nga kuy tux adduna du jag moo doon ni ma sa jag adduna du ma sa jag yi baax yi fi nekk ak yu bon yi yow xool ci sa kanam nga def lu baax rek ku la ci fekk si nga jël. suma sëriñ bu tedd ba alxaaji Maajo Siise radiyallahu anhu nee na bis am na xew-xew ca Tiwaawan kenn ñemewul jub sëriñ Babacar pour wax moom munuñ ci dënnam man sëriñ Babacar yàlla kott boole ak moom kon lu xew ci kër gi te jaarul yoon dinaa ko wax ne mu ñëw ci moom ñi nga xalifa bi tey mbir mi sa kaw la daanu nangam ak nangam ak nangam moo xew neen si Babacar ni dënn ba mu yàgg ni ko siise nit ñi dañu rëcc soo leen bëggee delloo si dara fekk la si saxal ci ni nga mel bay leen ak ñoom nañu mel waxu xakim mi ngi noonu kon fa tabarakallahu lii rek laa bëggoon laawee biir sama bopp laawee biir ñëw a ko bokkal yal na di ilman naafian et yal na ngeen teewaat fii at yu bare wayjur yi ñu boole woon yàlla yokk seen yërmande ak seen leer ak seen njëggal te saxal seen mbégte ca jënnatu zaati yéen ndono ndono yu baax ngeen ndono yu yaakaaru ngeen fayu leen seen kër ay waajur ku xamal bay àlla Yaquba Fall bay àlla Ablaye Fall màggat ci loolu jàngal nañu ay génération yu génération génération ci alquran تفق إمام مالك أكتب الطريقة بما شاء الله تيسوني جسو جسلين نجن نك تواروي نك نجن فين ورنك سوين نك كون فلن يفكرن في يدلن ويدلن ما الحمد لله رسولن سنكرمام رسولن نخ وقتم لك واقايا yal na yéen gudd fan yal na yéen am xaalis bu bare nag ndax sëriñ dafa war a bare xaalis ndax sañse yii sëriñ xaal yi di sañse dafa war a bare xaalis imam Mara Fall nga xamante ni moo ak yooyu ñoo dëkk yal na poosal di gën a fees ba teraanga yu mel nii mu di ko génne ci biir usra bi ak ci biir xadara bi ñun daal ak ñu nu àndal bég nañu lool ci teeru bi ci dalal bi ci teraanga ji ñoo ngi feddali kóllëre yi ñoo ngi feddali cofeel gi tabaarakallahu di leen ndokkeelaat hani an lakum wa kullu amin wa antum tayibuuna wa ma dalik allah bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh